waaw euh, mais oustaz tamit ba ñuy gis euh, jamono da ngay gis boroom kër bu nekk événement tabaski du tëdd du nelaw lépp ngir xalaat xarum tabaski te bu ñëwee amaana soxnoom euh, ne moom buggul xadi wala mu xeeb ko loolu tey lan ngay ban ban message ngay jàllale tey. ci gu ñàkk fayda kese mooy kër kër yi ba am xar. Mhm. indi ko am ñu koy xeeb. dëgg la. sàkku teraanga ni mu mettee nga lijjanti ba am ko. Mhm. indi sa xar sa jabar naan la faar bi daa noox <laughs> alaaji nag bii moom mënoon ngaa am beneen nel tell mbéj mu dali fële lijjanti sa xar ba am ko indi sa jabar toog naan la ay faar bi daa noox mhm. ay alaaji nag bii moom wala bu la ko ñemewu la wax sax nga wan ko xar ma ah bii la <laughs> ñëw na kon ah waaw jëm la ko xeebal ba nit kenn du ko xeebal li mu am dëgg la importance su xar mu rëy amul solo mhm. yéen ñii di wane wu jël seen xar yu rëy yi di sang bis bu ne di wéer ci poto lampe bi it ngeen bàyyi wanewu mm-hmm. am na ku ko amul looy wane ne suñu xar mi nii la toll xar mi nu mën a toll ci kàttanu sunu borom moom midi ci mm-hmm. tabaski dana fekk mu ne ci cin li di baax mm-hmm. amul sens loolu tendance la sax kenn daa mën a xàmmee yàpp xar mu rëy ak xar mu xar mu tuuti boo ko lakkee ba teg ci bool bi kuy ñoom diw moo nekk nii kenn yàpp yàpp la te yàlla jaamu yàlla gi la ci soxla mais tiitaru bi dangay gis koo xam ne buy wàccee xaram moom deux heures ci bëccëg fekk waa koñ bi ñëpp génn taliba la koy wàccee di diri pour nit ñi xool xar mi ne xar mu rëy la ban mhm. sens la am am ñu naan sama xar jëndee naa ko cinq cent mille ñi naan mhm. sama xar si lu waay tanee nit nanga ko ko dimbalee te yàlla tax mhm. paaka ngay puu puukariwu ci nit ñi di leen wan ne sama am am fii la toll jigéen ñi seen yoon nekkul ci xar mi amul publicité amul wane amul jabaru diw amul nangam sa yoon mm-hmm. nekkul ci xar mi lii laa am lii laay tabaskee. Mm-hmm. dégg wax bi. dégg naa soo amee benn kër. Mm-hmm. am ñaari soxna. suñu mënee dajaloo ci benn kër gi ndax sa am-am foofu la toll ñëpp dajaloo ci kër gi tabaski. jënd benn xar. yenn saa yi day am problème góor gu yor ñaari jabar. bokkuñu fu ñu nekk. te sa am-am ci benn xar layam ku ne toog fa mu toog ci ruqam di la proposer xar. te mënoo ko. la xam nga luy yoon. Mm-hmm. na kenn ki déplacé wu ñëw ci kër kenn ki nga rayandoo benn xar yéene leen ci ñoom ñëpp. parce que mm-hmm. moom nga am. fulla mooy yor kër ku amul fulla sa kër tas. Mm-hmm. yenn saa yi nga dégg ku naan diw ba mu takkee ñaareel ba léegi këram daa yëngu mais ci moom la rek góor ñaa ngi fi am fulla ak fayda yor ñeenti jabar gérer ko sans problème. góor gu ci ñàkk fayda nag yor ñaari jabar te xamoo sa responsabilité di wut par parloo ñàkk fayda parce que jigéen moom amul ma dem te ñëw boo ñàkkee fayda mu yab la loolu moom noonu la ko yàlla bindee mhm. soo ñàkkee fayda mu yab la mën nga yor sa ñaari jabar la leen ba ñu mel ni montur te jàmmay am góor gu am fayda mooy yor ñaari jabar góoru yambar yambar doo yor ñaari jabar parce que da ngay parparloo boo demee ci ñaareel bi tagg ko boo demee si ñetteel bi tagg ko boo demee si ñeenteel bi tagg ko mhm. kenn xamul foo féete mhm. waaye am caractère am fulla mhm. am personnalité <laughs> xam sa bopp ñaar ñoo yor ñu respecté la. <laughs> <laughs> comme ni ko oustaz rek ci biir waxam dégg naa mu ne jël xar bu mag di ko euh, di ko wane ci mbedd mi nit ñi xam ne euh, diw moo jënd xar bi et c'est tamit euh, loolu waruñu cee jéem a taxaw parce que léegi gis nekk ci koñ jënd xar bi jar un am ñu nekk ci koñ bi ñoo xam ne amuñu lu ñu tabaskee. maa ngi koy wax barki démb nee naa mm-hmm. ku nekk rek na nga dimbali ka nga tane mm-hmm. que dafa am ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw te mënuñoo tàllal xam nga àdduna mm-hmm. ñaari façon pauvre ñoo fi am ñaari façon pauvre nee na ci alquran ñaari façon pauvre ñoo fi am wa fi amwalihim xaqun maalumun lissaili wal mahrum yàlla nee na seen alal ji yéen milliardaires yi mhm. am na ci àq joo xam ne ñu ñàkk ñi ñoo ko moom génnee leen ko jox leen ko ñu ne yàlla kan ak kan la mu ne ñaar lañu lissaa ili mhm. am na koo xam ne bu soxlaa day ñëw sa kër tëjoog yow ci saal bi wax la soxlaam am na koo xam ne moom la ñu tuddee almahrum mooy ki ñàkk ba pare kersam mayu ko mu laaj la ñaari laajkat a am mhm. ki amul kersa yi ñëw wax la soxlaam ak ki am kersa ak sutura mm-hmm. rus na laa ñaan kooku jëkkatil jox ko te xaar mu laaj la am na ñu mënta laaj mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ñu dee lekk ngooñ it ñëw tàllal loxo parce que noonu la leen yàlla bindee am na ñoo xam ni am nañ fu lay ñëw wax la seen soxla mm-hmm. yàlla nag nee na àdduna ñaara fi nekk ki la mën a laaj ak ki la mënta laaj comprendre leen ku ci nekk àq ji mu am ci sa alal nga yëkkati ko jox ko ko ku yàlla sagalee may la un milliard ci sa compte mhm. ñaata jullitu yàlla ñoo ne ci réew mi di taqale tabaski amuñu ko ñii gëj nañoo liggéey mhm. ñii am nañu problème mhm. ñii ñi ngi ci ay jafe-jafe ñii situation dab na leen koo mën a dimbali te yàlla tax nga dimbali ko te yàlla tax loolu am na solo nee na ku mu mën a dimbali te yàlla tax nga dimbali ko ah oustaz yaakaar naa li ñu amoon ci ay minutes jeex na waxtaan bi am na solo euh, moom laa xeex moom man sax sama oustaz la ndax euh, ci yiw gi euh, ak ci maandu gi yëpp man dama ko cee sopp te xam naa ni ma mel ci moom noonu la mbokk internet yu yëpp ne mel ci moom duñ defee lu jox ko kàddu yi rek mu mu tàggatook mbokk internet Dakar ne di koy seetaan. jërëjëf ñu ngi am mbégte lool di ñaan yàlla sunu borom. yal yàlla def ci réew mi jàmm borom teraanga yi nga xam ni itam ñu ngi ci réew mi di def lu baax yàlla gën leen a suturaal ndax am na ñoo xam ne ñu ngi dimbali nit ñi ku ci mel ni Adja Marème Faye Sall nga xam ne am na mouvement boo xamante ni bii seen yitte yëpp mooy solidarité ak dimbali tabaski bi man xam naa ñu baree bari ñoo xamante ni bii moom moo leen jëndal tabaski te bu ko neexoon man man euh, du ko ci fekk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nag loolu mm-hmm. ah bu ko nit dee def danga koy ñaanal yàlla mu gën a yokk mm-hmm. ñi ci des itam roy ci moom ndax bu la yàlla dénkee alal mm-hmm. am nga ay mbokk am na ñoo bokkal am nga ay doomu baay am nga ay doomu ndijaay am nga ay sœur yenn saa yi nga gis boroom alal joo xam ni am na rakkam bu jigéen buy sëy fenn ne ca ay tolof tolof tabaski jot mënu koo tàllal loxo. Mm-hmm. bari na ñu naan yaay diw. te am nga ay mbokk yu am problème. Mm-hmm. beneen bi ci des mooy. Mm-hmm. nañu jéem a am jàmm ci kër yi. jàmm yi. problème bari na ci kër yi torop tabaski day jot détails yi. diw jëndal na jabaru diw diw jëndul diw tabaskiwul diw xottiwul. doomu bàyyi. fiiraange doomu bàyyi xew ci jamono. Mm-hmm. Mm-hmm. mais nañ ko moytu. am na solo. lépp nag ñàkk gëm yàllaa ko waral. Mm-hmm. nekk ak sa doomu bàyyi yàlla may ko lum la mayul nga ni doo ko supporté. nekk ak sa doomu bàyyi mag ko yàlla dénk ko teraanga nga ni doo ko supporté parce que am na ñoo xam ne yàgg ñoo ma bokk benn papa mais li nu gëm mooy. een lañ la jàppal. dëgg la nañu bañ a déglu information yàqkat yi ñëw ci ñun di ñu jaxase. nit lum la deful rek. bu ko àtte bul déglu waxu nit ñi teeyal mm-hmm. koo gis teeyal ci moom jàmm jooju daal maa ngi koy woote waat ci réew mi mm-hmm. di ñaan yàlla sunu boroom tabaski bi ñu dëgmal mal na yàlla defar lépp yal na ñëpp am jàmm ñi amagul xar yàlla na nu am xar ñu amagul xotti yàlla na nu ko am ci darajay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm.